ci bii nekk ci xar yàlla front de terre dëkkuwaay yi dafay niroog lu yàgg Adja Awa Faye moo dëkk fii lu ëpp juróom fukki at moom nag dafa bokk ci famille yi nga xamante ne ñaar fukk ak benn la ñu bëgg leen a génne fii ba ñii ñëpp daf leen jaay jaay suñu borom kër yi ñamu jaayoon nag ñu bari génn nañu àdduna ñu fi des bariwul su ma yeboon ñu ko fekkee woon maa ngi sant yàlla dul si Mohamed man mii maa ko fekke naa ko man joueur maître lañ jël moo leen tracé fii. langu dëkkuwaay bii ñuy gis nag atum 1995 la woon ba léegi. waa kër gi ñu am ko. yokk ci attestation bi wane ni dañ la jaay mu nekk ci atum 1971 ñoom nag ñu ngi fii tey ñoom ñëpp ngir wax lu leen métti. kër yi ñun suñu bakkan lañ ci teg suñu kër rek wala dañ ñuy suuli noonu lay demee. pour waa ji dara lu ñu négocier ak moom ndax moom jaayal suñu papa yi papa moo jaay suñu papa. papaam amu fi dara moom amu fi dara. Babacar jaay na ku mu jaay jox na la kayit ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk réew mi ñoom la ñuy waxal fii balaa ay bakkan di fi rot nañu jug ci situation bi ñu réglé ko mu féete boor waaju ji may ñu jàmm. waa ji ñuy wax nag moo nekk nii ci photo bi bi waajuram bu góor génnee àdduna mu ñëwaat fii ngir waxtaanaat ci njaay min njaayoon terrain mi ci atum 1970 ngir gën a am luñ ci leer ci mbir mi ñu woo ko. c'est Man, je peux interroger Non, non, j'ai pas besoin de parler la mais je mais c'est un foncier. On ne eh, dina ci mais du ci parce que du yombé non kër yi yépp nak ci la bok dañoo dëkk koy nit nu muy un nga acte de vente kuko signé un moko signé mu ngi dossier bi mu ngi tribunal juge bi dina wax fu 25 juillet bi ci wër bi